jàmm ak salaam ak afiya nañu ko may sama footballkat bii di Kylian Mbappé kaddu yooyu mi ngi soqe ko ci eh, Nasser Al Khelaïfi di président bu Paris Saint-Germain kaddu yooyu ndax am na droit wax ko ñu bari nag jàpp nañ ni gone gi dafa xoolib gunóor waru ko wax tey it moomul nit ñi entraînement merengue yi tamit am nañ ci loon ci coppate ndànk fële ca terrain ba nga xam ni Sadio Mané ah, fa la doon entraîné moo na Ronaldo ginaaw bu sàkkoo ci yow mii di ma door a dab nga abonné ma nga noonee mbir ma nasara xalaf yi jëw na ci équipe ñëw ci as yëglekaay xamle loolee ci daanaka site internet yu mag yooyee la mu leen xamle mooy kii di Kylian Mbappé deful lu dul protéger li nga xam ne mooy ab équipe am protéger li nga xam ne mooy Paris Saint-Germain ñun nag li ñu bëgg man nasara xalaf yi mooy ngeen bàyyi euh, kile di Karim Moustapha wala kile nga xam ni moo nekk euh, kii di Kylian Mbappé tranquille maanaam ngeen bàyyi ko fépp tous tasar ci moom ndax moom moomee daanaka war ngeen koo mën a bàyyi mu gondaandaat ca club boobee wax la joo xam ne nag am na ñu bari ñoo xam ne nee nañ kàddu yi kii di Nasser Khalafi diis na gan ma gis ci ni moom mii di président euh, Nasser Khalafi daanake rek dafa sonn te it xam naa ni dafa bëgg a prolongé gone gi lépp nekk waxtaan woo xam ni wax ji am ci biti da koy yëngal nag ba dérangement mën naa am ci moom bu ko defee euh, coow day judd foofee ci kër ga mu bëgg lépp ne tekk nag mu nox gone gi daal di koy tëccaat foofee ca Paris Saint-Germain mu nekk ab kaso boo xam ni kaso bu nar a métti la euh, ci kii di Kylian Mbappé moo xam ni bëgg na faa jógee entraînement baa ngoogu Carlo Ancelotti ak doomam ak gétt gi nga xam ni yóbbu nañ ko ca terrain ba nga xam ne moo nekk ca Al Nasser Cristiano Ronaldo ki ñañam daanaka ñu ngi ci ak bër kon ñoom ñoo ñee terrain ba mën nañ ko able able nañ ko nag benn yoon lañ cee entraîné moom waa Real Madrid benn yoon ba ma nga nii ña nga fay wadd waddeeku cëpp-cëppi suba jàmm nag ñoom dañoo war a dajeek Atlético Madrid di loo xam ne daanaka Coupe du Roi la match bu ama am solo ci ñaari équipe yi ndax dër bi la dër boo xam ne nag dañ koy ñël dajjarti ko daal di koy dër fële nga xam ni moo nekk Arabie Saoudite nag xam ne naa yi dañu bëgg match boobee moo tax naa na ñu leen ko entraînement baa ngoogu amoon na solo Edouard Camavinga mi ngi noonu ngeen gis ko ci image yi mu nekk koo xam ne entraîné na te it mi ngi waat ci forme bu mucc ayib mi ngi waat ci forme boo xam ne bu am solo la Carvajal moom it gis ngeen ko Rodrigo Goes ak gone yi ba nu paree noppalu na nag Brahim Diaz ak ñi mu àndal ak kii di Bellingham ca ker ga nga xam ne moo nekk ca yooyee terrain bu ko defee ñu mën a gundaan daat ndànk rek noppalu waajal suba ak jàmm insha allahu ci match bu am solo bi nar am foofee ci li nga xam ni mooy Arabie Saoudite